salaamaaleykum. Sala. Kaay xoolal xoolal. xam expliqué. noppi dama dama dama dem leen ba baal maa ngi jégalu barki cërë man yàlla. noppi laa noppi daal noppi. yow ñi ñaa ngi nelaw fii sama papa ngi nelaw. Ah, dañu ba baal ba ngir yàlla baal ma. nga yebaate yow baal ma rek. nga yebaate. wala dootuma dootuma ko def. <laughs> kii dafa yabaate waay. ñaa ngi nelaw ba pare nga yaa sunu nelaw. ah dama dama jégalu maa ngi jégalu baal ma. wul kii. <laughs> wala caméra cachée la. <laughs>